yére jigéen ni di génn di dem fan ni jaay lii daal pour daw moom daw joxe mu bi julli rek li mooy lan xaaral sama oo sa doom yi xaamu doom yi ñu ñoo gis la suba teel li gis ngay sol yére jigéen di génn pour daw joxe mu bi julli rek sa de eh gis nga sa morom de sa morom de laa sa morom de indil fi indil fi mu sol nañu xool bàyyam luñ solo yow nijaay yow nijaay li ma la nijaay sonal nga ma Yacine sonal ma la de Yacine di bañ Krishna suma bos la bii bii kay suma bos la. waaw lii euh, courant nga naan euh, amuloo cash power bu tey lu tax nga naan ma yow seetaan ma ne defuma dakka man te dama koy seetaani de. man mii sax suma kër laa dem ma suma cash power dafa indi lu ah. lu ñoo wax Q power ak Q power mun ngaa recharge sa cash power through SMS. ah léegi su ko bëggee am suma kër lu may def. <laughs> loo soxla rek mooy. waaw amal sa QCell line. soo ko amee ba pare. waaw nga registré si sa mita bi. waaw mun nga see registré bi ñaari mita. soo soo registré sa mita bi ba pare. danga ngaa xayma ñaata nga bugg a jënd nga yónnee ko si tri tri tri dégg su fekkee ne nag kiw power scratch card bi nga amee da ngaa xoos bi nga yónnee ko ñu yónnee la sa code nga loot ko am sa cash power. sa lampa taal sa télé taal sa kër taal. <laughs> xam nga kon gaawal nga dem dugal yi dugalal ñu si daal moo di bakkan ku ko ñàkk dootul ñandu waaye kiwsel moo di bakkan ku ko ñàkk dootul ñandu. fii. kon man carton yi ma jëndoon yëpp lekk naa yi fa ñëw ma yóbbu ko si bitig. dama ci bi nga jëndal ma biscuit. xamee ko bu baax. du rek nduroo pire. muñ ci mil sot keeg biscuit. yaa koo gis. gaañ ñi bari nañ fi nag. waaye benn bii. boo ma jëndalee beneen biscuit bu ko may. tey ma fase sa yaay. fase mee nañ. fase. waaye du ko la ko jàppee dati. ndax ne xaay muñ ci mil sot keeg bii. bi ba ma waxantoo ndax suma doom yi dama leen yar ci xàmmee lu baax ak qualité. mu ngi ci milk soo kee bii. mu liggéey ca réew Sri Lanka ca compagnie bañ naan Ceylon Biscuit Limited CBL ñu ngi ko def nii ci gannaaw paquet bi ngeen xàmmee ko bu baax lay doon róog biir man suma biir bii ak sumay biir yi njaboot lu siy mun a dugal lu óor laa doon am na ci bépp bitik si marché si ku ci bugg a lu bëri mbaaxoo fiir demal ca MFH group M C H E gis naa ko jigéen ma nu ko man gis naa ko lii muy def yëg naa ko kenn du man naa ko lii muy waa gis naa ko jigéen ma nu ko man gis naa ko lii muy waa naa ko you the only one I want I swear I swear you the only one I need I swear I swear Mami mayonnaise coming soon in the market. I swear, I swear yaa jol màkk yaa leen ñu ngare nañu màkk ñu nga jëm nag ñetti fani tabaski jot na ñu nga jëblu minam fanaan nañu minam ennu nañu minam waaye jóg nañ ca fajar dem arafaat yennu nañu arafaat ñu ngay fanaan musdalifa xëyee nañ ca suba nag ñu nga utali minam seydina muhammad rasulullah jol màkk yaa leen ba ñu agsee minam daw nañu nag sànni jam la dellu si waat ñu nga duggaat ca boose utali màkk seydina muhammad rasulullah jol màkk doo seet mu mën fi naka lañ ciy bokkee اللسان جددي أيامنا بكت عيني بكت عيني Questions to 2020 200 30 30 300 60 60 600 and 999 0909 and get your questions answered by Islamic scholars in English, Wolof, Mandinka, Jola and Fula. Just text and get your questions answered. GRTS wishes you a blessed holy month of Ramadan. asalaamaaleykum mbokk yi ñu seetaan di leen dalal si suñ programme bi yi wennee bi nga xamante ne di ngeen bëgg di sense and corrections yi dinañ leen indil borom xam-xam yu nekk si dëkk bi fii ñu tontu leen ko tey nag ñu ngi fi am oustaz Omar Mbow jógee ba Sinthiou Alaaji oustaz ñu ngi lay dalal si programme bi. bisimilah bisimilah rahmaani rahiim wasalaatu wasalaam ala rasulillah soxna Zahra Diallo ñu ngi leen di nuyu. oustaz suñ first correction bi kii mu ngi ci jigéen yi nga xamante ne dañuy naan ay pills tablet wala jël ay péngu pour stop seen mbaax si weeri koor bi fii um, pour bañ a fay ay bor mm-hmm. loolu lan la si islam wax ndax is dagal na si islam ndax déedéet. waaw bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa sallim soxna Sahra laajte boobu noonu am na solo lool am na boroomi xam-xam yoo xam ne wax nañ ne comme koo xam ne yaa ngi dem di aji màkka te nga ragal ne xëj na fóot mun na laa feeñu ci biir wër kaaba gi ndax bu la foot feñu ci biir wëram kaaba gi do mëna wër kaaba gi te bo wër kaaba dafa melni ni ba amna na bu yaqku ci sa ponki aj gi mm-hmm. ñu ne kon su ba kon su la wóoree ne yaakaar naa ne su le période dafa jege am borom xam-xam yo xam ne wax ne ne mën nga ko nanal per pour nga bana baña fank mëna pour nga mëna wër kaaba gi waye nak soko ko ci weeru koor bi ni ak aj gi yëpp euh, mbir la mo xam soxna Sahara euh, yalla borom subhanahu wa taala moko wacc ci jigéen Euh, li gënoon daal mooy nga bàyyi ko su fekkee ne daal gis nga ne fan yi mooy fan yoo xam ne fan fani période la bul naan garab bàyyil noonu ndax yàlla moo la joxoon ne su fekkee ne période feeñu ne la bul oor su koor gi deexee nga fay kon pour nu fay koor bu mu tax ngay dugg ci loo xam ne ëllëg mun na laa indil problème ndax alxuraan waxoon nañu ne wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu leen fexe ba jël seen bakkan di ko sànn ci loo xam ne daf leen di toroxal